Euh, je suis euh, Alassane chargé de communication de euh, Grand Gamou de Ella Jean-François Bojan, l'imam euh, du département de Bignona, et en même temps, c'est le guide religieux de ce département-là. Donc l'objet de cette visite, c'est venir euh, présenter ses condoléances, lui à rappel du guide feu Serigne Sidi Mokhtar Mbake, parce que vous êtes sans savoir quand ce douloureux problème eu lieu ici au Sénégal, le marabout était absent. Et ces temps-là, il nous a demandé de venir l'accompagner ici à Kolda, venir se pr présenter ses condoléances chez Mohamed Moutakha Mbake, qui est actuellement le nouveau Khalif général de Mourites, mais également lui euh, compenser de toute euh, Donc quelqu'un Euh, qui a beaucoup œuvré pour la religion musulmane. Et je crois que qu'entre euh, El Hadj Fansou Bodian et la communauté mouride, ça date de très longtemps, depuis euh, l'évêque de Mouhamadou Fadel Mbacké et de Seydi Mouhamadou Mourtada Mbacké. Donc il y a eu des relations, ces relations-là ont continué. Donc si bien que un tel événement, il peut pas rester en rade, il faudrait qu'il vienne ici à Touba présenter ses condoléances. à la population de Touba, mais également, également au monde euh, musulman. Aujourd'hui, il de l'affaire de Boa, la paix. Vous savez, c'est quelqu'un que je connais parce que quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre pour euh, la paix en Casamance. fois, il me disait, s'il faut rendre l'âme, s'il faut donner sa vie pour que la paix revienne en Casamance, il va le faire. Donc, euh, c'est pourquoi des questions sur le problème de la Casamance, il ne voulait pas en tirer trop loin, mais c'est quelqu'un qui travaille en l'ombre pour euh, faire revenir la paix. c'est quelqu'un qui est discret, et tout ce qu'il fait. Donc, euh, il ne veut pas se mettre devant les médias pour le dire, mais j'avoue, c'est quelqu'un qui pour euh, faire revenir la paix. Et jusqu'à présent, il est en de le compter et de le faire. C'est vrai que ce n'est aujourd'hui pour donner ses impressions par rapport euh, à ce qui est arrivé à à, euh, à Ziguinchor, à, en Casamance. Mais j'avoue, comme tout musulman, donc euh, ce qu'ils peuvent dire, c'est de demander le maître de de la terre que la paix revienne en mais également au niveau du, du Sénégal. Et que, comme vous le savez, donc euh, tout ce qui est en train de se, de, au niveau de la Casamance. Euh, ne peut pas plaire à tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est que la paix revienne en Casamance, comme tout bon Sénégalais, comme tout bon musulman, comme tout euh, euh, Africain, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Donc euh, son seul combat aujourd'hui, ce qui lui reste, c'est que la paix revienne en Casamance, qu'il joue un jour, qu'il voit un jour que est en train de se battre pour faire revenir à, en Casamance puisse avoir le jour. Je que, euh, Inch'Allah, bientôt nous verrons ses fruits. Je crois que c'est quelqu'un, un homme digne. de parole, euh, un homme qui est en train de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, beaucoup de choses pour faire, faire revenir, la, euh, faire en Casamance. Donc, euh, sur donc, je vous remercie très vivement sur cette visite euh, que vous nous avez facilitée, parce que également, ça montre entre la religion, nous sommes tous des frères, que ça soit Imam François en tant que musulman, mais en tant que jola Donc, si la communauté mourite est endeuillé, je crois qu'il est très normal en tant que fidèle, juge de ses relations avec cette communauté, de venir présenter ses condoléances à ses parents, à ses frères, à ses pères musulmans. Merci beaucoup. Euh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent sallallahu alayhi wa sallam euh, visite bi mooy li nga xamante ne daloon nañ fan yàlla passé mooy euh, Touba. mooy dem si yàlla ki nekkoon fii euh, xalifa général des mourides mooy Serigne Sidi Makhtar Mbacké bu mu wàccee liggéey dafa fekk Serigne bi mu nekkoon ci euh, ay tukki bu mu dellu see lawoo mbokk taalibe yi mooy El Hadj boo jaan di koy dellu si encore ndekk moom moo nekk imam ratib bu département bi Bignona moo taalibe yëpp ñu nekk ci diwaanu Sénégal ne leen li am na bés bi nga xamante dama ko téye sañ naa ngeen gunge ma dem Touba dem feddali kuréel li nga xamante ne moo amoon sama diggante ak waa Touba waaye nag yóbbu sama njaal ci xale bi nekk fi mooy sëñ Mountakha Mbacké donc euh, bu mu demee boo joxee woote boobu ñun ñëpp daal di mobiliser wu gunge ko ñëw ba fii mu tombé bës bi nga xamante tam bés bu mag tey ci euh, yoonu Serigne Touba ndaxte dañoo fekk nag ni ki euh, sëñ Mountakha mu am euh, ay déclaration yu mu waroon jëbal ci njabootu Serigne Touba ñoo tam fekkee ci li nga xamante moom mooy déclaration boobu yàlla jàppale bu ñuy gis sëñ Bass jëkk tamit li nga xamante moom mooy sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mooy xalif bi daal di koy yeesal cofeelam ci wàllu yoonu murit bi nga xamante ne ñoom ñëpp ay ay jullit lañu waaye naka du koy euh, présenter li nga xamante ne moom mooy condoléances yi donc ci loolu moo taay euh, taalibe yëpp parce que dafa ne nekk ñun ñëpp ay jullit lañ mu nekk tijaan bi mu nekk joolaa bi waaye lu ñu boole mooy ñun ay jullit lañu sa morom bu mu amee métit nga war si xar tànk tubéy ñëw bokk li nga xamante ne moom mooy métit bi donte banneex la tam ngeen bokk ko tam surtout li nga xamante ne lu doy li Touba kenn ku nekk xam ne ki Touba ba su dëkk diine l'islam la dëkk bu mag la ku ko sos tam kenn ku nekk xam ne lu mu liggéey lislaam ñoom ñëpp royukaay lañu ci ñoom ñoo fii ci li nga xamante ne ci euh, dëkk bu sell bi. waaw wàllu jàmm Casamance xam nga sëriñ bi euh, buñ ko laajee sànq dafa ne ni ki euh, du si sori ci wax bi ndaxte dafa di ki nga xamante ne yàgg na di liggéey ngir jàmm dellu si ci Casamance. parce que moom dafa ne ni ki lépp li nga xamante ne amoon na ko ci wàllu diine l'islam ngir dem jàng dellu si yore ay lijaasa woote li nga xamante ne moom mooy euh, ay école yu bëri yu mu sànc foofu diwaanu Casamance loolu yëpp yàlla suñu borom dimbali na ko ba mu am ko waaye nag bu xew-xew bi demee ba am Casamance mooy laata li kenn ku ne xamal ni ki moom yéenoom yëpp fexe ba jàmm dellu si ci Casamance newoon na ni ki moom bu dee moom joxe bakkanam mooy te ba Casamance am jàmm dina doon tayale bakkanam ngir jàmm Casamance am waaye nag moom dafa di ki nga xam ne comme tubaab ñu koy ku discret cest à dafa tey dafa dal lu muy dugg du bëgg bëgg ñëpp xam ko parce que nit ki bu ñu xamee fu nga jëm day tax moo tax moom day fa ki lu mu xam lu am euh, fan yee passé mu ngi koy métti waaye nag doomi aadama donte benn doomi aadama moo wot moo ñàkk bakkanam nga xam ne ni ki moom kenn ñaanu ko waaye nag di leen xamal ne ki jàmm Casamance saa su ne bu muy julli buy gont ci yooyu lay nekk donc mu ngi ñaan yàlla suñu mbooloo dimbali ko ndaxte loolu rek tey tey boo déggee li nga xamante ne moo ko gën a ittee ci lépp li nga xamante ne mu ngi koy liggéey diine lislaam mooy fexe ba jàmmakaan te ci silo yi lay nekk ñu si gën a bëri ñu nekk Casamance xam nañ ko ñu nekk tam ci li kuréelu administration bi xam nañ ko waaye nag ñun ñëpp muy waatu ba wax na ko sax sëñ bi sëñ Muntaxa dem na ba nekkoon ni ki jàmm Casamance comme ni nga ko nekk di sa fexeel ba saa ne comme ni nga ko waxee nga sax si te ñu waa Touba tam ci yooyu lañ nekk di sax ngir jàmm bi ñëw parce que jàmm Casamance moom mooy jàmm Sénégal jàmm Sénégal moom mooy jàmm Afrique jàmm Afrique moom mooy jàmm àdduna lépp parce que tey ngeen bokk ndey ak baay donc euh, di xiiroo di ñaaw parce que bi ñun ñoo ko bokk donc mu mel ni euh, ñun ñëpp lañ gën a sonal surtout ñi nga xamante ne ñun Casamance lañu dëkk donc kenn yéenewul chaque fois booy yeewu ay fetal di takk waaye nag lépp dinañ ko bàyyi ci li nga xamante mooy yàlla suñu borom te ku siy nga def si ngir yàlla ak yone parce que moom loolu mooy credoom mooy lépp li nga xamante ne mu ngi koy def ci wàllu jàmm Casamance utiwu si ngistal utiwu si li nga xamante ne alal te yaakaaru benn xaalis feneen ngir ñu jokkoo pour jàmm Casamance soxlawul fifteen nit soxlawul fifteen administration soxlawul fifteen nguur li nga xamante ne mooy ñi nga xam ñooy ñoo bokk ak moom ci yéene bi mu am comme ñëpp ñi nga xamante yéene boobu la ñu ngir jàmm bi am fa Casamance euh, yi dafa leen nekk daf leen di sant bu baax parce que tam bokka nag ñi nga xamante ne te mun nañu gën a yokk ci li nga xamante ne jàmm bi war na fa ñëw ñaan yàlla suñu borom jàmm boobu bu ñuy joyitu yàlla suñu borom indi ko ci diwaanu Casamance indi ko ci waaru Sénégal indi ko ci Afrique kon su ko defee euh, ñëpp am jàmm koom-koom bi gën a dund que kenn ku nekk fi mu toog ak lu mu yéene moromam mu def ko bu ko defee comme ñu ne ñu ko nekk di def donc incha allah lépp day leer te jàmm bi tam soreetul incha allah.